benn bi fii ci réew mi lañ koy fubalee le 6 ñetti fan gannaaw ga muy le 9 ci la ñu ba ca topp loolu nag mooy li nga xam ne moom la kii di Cissé war a dégg nga maam publier ci lii di ajum bii di ñëw bu dellu see le 30 lay doon ci la Cissé di war a janoo ak taskatu xibaar lu jëm ci wàccaay jongante le mu mel ni kon daanaka dafay publier list bi rek ñu dal di sóobu ci regroupement yi ndax bu liste bi génnee ñaari bés gannaaw ga ci la ñuy tàmbale li nga xam ne moo aju ci wàccaay yooyu la ci wàllum basket nag suñu gayndey jigéen yi tey jii dañoo dal di am ndam ci match bi ñu doon am seen diggante ak Brésil 69 59 voilà gannaaw bi ñu gañee seen match bu njëkk ba tey jii dañu amaat beneen ndam mu nekk lu am solo wala gayndey jigéen yi ñu ngi ci li nga xam ne mooy qualification coupe du monde 2026 te ñu jagleel ko jigéen ñi ci wàllum basket Abdallah Sima l'international sénégalais mu ngi ci yoonu dem foofu la ca France gi nga xam ne able woon nañu ko fa niki daaw jëg ca Angers lañ ko able woon waaye Brest moo ko bëgg Brest bi nga xam ne sax dañoo war a dem ci Ligue des champions bi gannaaw bi ñu signé kii di Abdoulaye Niakhate Ndiaye ci bés yi ñu weesu nga xam ne def na ak ñoom sax pré-saison jamono bi ñu ngi ci beneen sénégalais wala yeneen sénégalais sax ndax kii di Abdallah Sima kenn la ci ñooñu ñu leen di limal moom nag foofu la ca Brighton la nekk joueur Brighton la niki daaw dañ ko appelé woon fële nga xam ne mooy ca Écosse ci club bi ñuy wax Rangers mu daal dafay def ngan saison donte ne am na blessure yoo xam ne dab na ko waaye kii di Abdallah Sima moomule moom la ñuy waa Brest bëgg a signé ci bés yi ñu dëkkmal dinañ wéy di topp mbir moom ne nañu daal daanaka mbir ma sotti na loolu la ñu xamle keneen koo xamante ne beneen Sénégalais la boo xam ne ñi di koy topp ci jamono bi itam mooy kii ñuy wax John Dion Lopy milieu de terrain sénégalais nekk foofu la ca Almeria ngir waa stade brestois dañoo bëgg ñu abal leen ko able googu sax de ñu ngi xam ne ne koppar dana ci aju ñaari million ak genn wàll moom la ñu teg ci leen koy abal pour benn saison waaye bu saison ba jeexee nga xam ne mooy option d'achat bu toll ci 14 virgule 5 millions d'euros loolu mooy offre bi ñu def ñoom waaye nag ñi nga xam ne waa Almeria dañ ko rejeté kon mel nañu ko euh, tey ji ñu ngi koy topp moom kii di Dion Lopy kon stade brestois gannaaw bi ñu signé Abdoulaye Niakhate Ndiaye dégg am li nga xamante ne mooy daanaka accord seen diggante ak Brighton ndax ne nañu daanaka sotti ci ki nga xam ne mooy Abdallah Sima ñoo ngi ci ki nga xam ne mooy Dion Lopy English Premier League ba tey jii moom dañu doon séddale seen i cër meilleur joueur meilleur euh, jeune ak li nga xamante ne mooy onze type bi nga xam ne moo génne ci saison bi ñu weesu tey jii daal nañ nga xam ne mooy English Premier League bi loolu ñuy tuddee PFA Player of the Year moom lañ doon joxe tey jile nga xam ne kat tànneef gi mu ngi jógee ci joueurs yi ñoom ñooy def vote yi ñooy woote wala daal di tànn joueur ki nga xam ne mooy Phil Foden moo nekk meilleur joueur kon ci championnat bu Angleterre ci saison ren bi ki li nga xam ne mooy seen cër waaye li nga xam ne mooy onze ci barak bu ñuy xool daanaka Man City ak Arsenal ñoo ko seddoo donte ne am na ci ñoo xamante ni bokkuñ ci ñooñu muy Liverpool ak yu ni mel ku ci nekk laal nga benn waaye onze bi nii la tëddee mu ngi noonu David Raya bu Arsenal moo nekk ci kang yi mooy onze bi gën a David Raya moo nekk ci kang comme ni la ko waxee défense bi Kyle Walker Man City Saliba bi nga xam ne Arsenal la ànd ci ki nga xam ne mooy Van Dijk ci axe bi ci beneen côté ba muy latéral gauche ñu moom itam nekk joueur Arsenal digg bi nag ñu ngi fi am ki nga xam ne mooy Declan waaye nag ànd ki nga xam ne mooy Rodri Hernandez ak Martin Odegaard attaque bi excentré yi ñu am ki nga xam ne mooy Watkins bu Aston Villa ci côté droite ci côté gauche ñu am fa ki nga xam ne mooy Phil Foden waaye Erling Haaland moo nekk ci kanam maanaam moo point lii mooy onze bi nga xam ne daal nañ cey génn bu ñu xoolee Man City bi nga xam ne moo gagné championnat bi fees na ci lool ndax am na fa Haaland am Phil Foden am ki nga xam ne mooy Rodri waaye itam am ki nga xam ne moom la ñuy wax Kyle Walker kon juróomi joueur Manchester City ñu ngi ci onze type bile wala ñeent ñeenti joueur Manchester City la bu di Arsenal nag moom moo fi am lu toll ci juróomi jour ndax seen gardien bi mën nañu gis ne mu ngi ci Saliba mu ngi ca Gabriel mu ngi muy ñett ki nga xam ne moom la ñu wax Martin Odegaard ak Declan Rice Watkins moo fi teewal Aston Villa waaye ki nga xam ne mooy Van Dijk moo fi teewal équipe boobu nga xam ne mooy Liverpool buñ desee ci Angleterre ba tey ki nga xam ne nag moom la ñuy wax Disasi muy Axel Disasi bi nga xam ne défenseuru Chelsea Football Club la Newcastle United dañu ko bëgg a jënd de gannaaw bi nga xam ne temps yëpp ñu ngi topp kooku nga xam ne moom la ñuy wax Gueye nekk joueur Crystal Palace défenseuru anglais boobu demoon ci ligne Europe bi booba léegi nag ñoom waa Newcastle ñu ngi koy topp waaye mel na ni de naruñ ci ñu bëgg mooy dal di dégg ci kooku nga xam ne mooy Axel Disasi bi nga xam ne joueur Chelsea football club la Chelsea nag am nañu joueur yu bari rawatina ci wàllum défense bi même ñe blessé woon sax muy ñoom Fofana ak ñu nu mel ñoom ñëpp dellusiwaat nañu desaasi bi daal moom la ñu kasul teg bët jamono bi ngir bokk signé bu ñu sukkandekoo ci taskatu xibaar yi Chelsea football club googu seen attaquant bi nga xam ne moom la wax Armando Broja moom itam danañu jege na lool ngir signé foofu la ca Ipswich Town dañu leen koy abal nak waaye abal googu daal ne nañu ànd nak loolu ñuy tuddee obligation to buy manam nekkul ne dafay dem dellusiwaat mais dañu am obligation ngir jënd ko ba saison bi jeexee loolu mo aju ci mbir moomu leen ne nañu daanaka sott na ci Fabrizio Romano Armando Broja ni ki daaw li nga xam ne mooy deuxième partie saison bi mu ko def ak ñii di waa Fulham ren ji bi saison bi tàmbale ba léegi wala boog pré-saison yi daanaka gisuñu ko lu bari jamono bi gis nañ ne chance am néew na lool ngir mu jouer ak li nga xam ne équipe Chelsea Football Club mbir ma rek di Armando Broja wara dem signé foofu la ci Ipswich Town bi nga xam ne dañuy soog a monté ci English Premier League bi kii nag ñu koy wax Amin Sarr Amin Sarr moom joueur olympique lyonnais la voilà moom jamono bi kat na nañu ñii di waa Hellas Verona ca Serie A bu Italie ñoo ko dal di bëgg Hellas Verona nga xamante ñoo fi door fan yi Napoli door yu méttee métti ba gën añu renforcer seen équipe boobu kii di Amin Sarr bii nga xam ne foofu la ci olympique lyonnais la nekk di gone gu ama am xarañte moom la te mbir moomu nag ñi xam ne ne sax daanaka sotti ndax ki nga xam ne mooy Amine moom accepté na li nga xam ne mooy transfert bi la ci des daanaka mooy wax ji mujj ngir mu war a mën a dem signé foofule ba ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi moo ngi noonu gars yi loolay li fi gënoon fees way leen di topp Sen Sport 221